du lu ñu bett ndax ñoom li ñu diggoon yi bari na ñoom ñoo ne woon post yëpp ay direction ay président de conseil dañuy def appel candidature Sénégalais bu mu neex rek mu ñëw déposer bu ko defee ñu xool kan moo am compétence kan moo am expertise ñu jox la ko mais man xamoon naa ne promesse boobu du jàll ndax tey ñoom mënoon leen sax def ko ba pare jaar si suuf wax seen ay nit ñu déposé bu ko defee ñu tànn ku leen neex mais jéemuñ ko sax def dañu ñëw seet poste yu gën a ne moo baax ba pare boo xoolee sax ñoom ñiñ jox poste yi ak ñiñ ñu dindi dafa mel ni ay règlement de compte lañu kon nen moytu façon yu mel noonu donc lépp lu ñu diggoon Sénégal yi ñoom duñ ko def te mënuñ ko def parce que ay cuune lañ xamuñ dara ay wàcc bees lañ sonk Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay lañ lañ mës a jiite donc tey sénégalais liñ leen di xaar ci dund gi ñu wàññi ko xëyu ndaw yi ñu amul liggéey am liggéey loolu lañ diggoon sénégalais. bonne gouvernance si ñoom la war a njëkkee jub jubal balaa ngay jubbanti nit da ngay jubal ba pare jub.